Cajou SAS Sénégal di entreprise sociale boo xamante ne mu ngi suqeekoo ci ONG bu tudd Bibliothèque sans frontières euh, pour tey jii apporter euh, connaissance ak opportunité professionnelle ci jeunes yi yu soxla euh, ay matuwaay yu wóor pour mën a avancer ci seen vie professionnelle ak pouvoir avancer ci seen vie de manière générale de tous les jours. waaw suñu sukkandikoo déjà ci stratégie nationale d'inclusion financière boo xamante ne euh, état Sénégal euh, mu ngi koy mu ngi koy val mu ngi koy euh, mu koy fësal ñun ci loolu la ñuy sukkandikoo pour aussi accompagner état ak écosystème bi yëpp pour gën a fësal opportunité financière yu existé tey ci écosystème sénégalais bi te ci loolu ñun suñu positionnement CAJU c'est d'abord ñu mun a sukkandiku ci réalité sociale yu ñu am vis-à-vis des femmes tey su ñu jëlee exemple entrepreneur yu jigéen yu ñu am qui sont surtout dans des zones rurales ñu ci bëri dégguñu français euh, donc opportunité financière yu bëri duñ ko comprendre ñu ko mun a adopter ba mun a tax ñu mun ci jëfandikoo pour mun a avancer ci seen projet entrepreneurial donc ñun valeur ajoutée boobu la ñu am di mun a euh, waxtaan ak cible yooyu di leen mun a communiquer message yoo xamante ne dinañ ko mun a dégg ah, ci seen langue. te yu adapté tamit ci seen ay contexte social ak économique parce que ñëpp yemuñu ñëpp bokkuñu niveau d'éducation ñëpp bokkuñu background professionnel donc tey loolu mooy suñu valeur ajoutée Cajoo donc dañu génne benn benn lu ñuy wax ñun carte Cajoo sur euh, entrepreneuriat ak éducation financière boo xamante ne ñëpp lay waxal ñëpp lay waxtaanal mais lu ko njëkk a ko njëkk tax a jóg mooy accompagner déjà entrepreneur bi ci programme euh, ci consolider idée de projet mën a avancer ci mën a tester idéem ci marché mën a am opportunité yu exister yëpp ci écosystème sénégalais bi donc ñun dañuy taxawu en fait initiative état bi yëpp yu mu takk ah de la part de la DER ak euh, des des entreprises financières ñu mun a démocratiser euh, outils yu financiers yëpp yu exister aujourd'hui dans l'écosystème sénégalais mun ko jox tey euh, cible jeune entrepreneur yi hommes comme femmes waaw opérationnalisation bi nag mu ngi tàmbali euh, ci weeru mai bi buy cible au-delà tey vingt entrepreneurs yu ñu accompagner dans le cadre euh, ci programme Jeune Chambre de Dakar ñu ngi cible deux mille cinq cent jeunes entrepreneurs euh, ma ciy woon nag tamit écosystème mu éducation financière bi yëpp ak képp koo xamante ni yaa ngi jog pour accompagner jeunes sénégalais yi entrepreneurs yi d'abord ñu gëm seen bopp. ñu mun a xam yan opportunité tey mu exister ak yan euh, jëmtuwaay ñoo am pour mun leen aider ñu asseoir seen entreprise ñu mun ci développer mu ci avancer et puis aussi participer à l'économie sénégalaise de manière générale donc opérationnalisation bi nga commencé tey ci wàllu ci mois de mai di jëm sur trois à cinq mois Euh, ñu ci woo encore une fois partenaires yëpp ñu jàppale ñu euh, ñu jox ko bépp jeune boo xamante ne am nga idée nga soxla accompagnement nga am plateforme d' information et d' formation bu lay permettre nga avancer ci ta idée de projet nga faire asseoir sa entreprise formaliser wu très important la formalisation mais surtout suñu wax éducation financière tamit mais boo xasee ba teg sa entreprise nan ngay gérer sa comptabilité ah nan ngay tey euh, fayee rembourser sa prêt Euh, voilà et loolu yëpp dafay am aussi ay réalités sociale yu ñu rattrapé tey Sénégal euh, képp xam na ne entrepreneur soutien de famille nga ci biir Sénégal naka ngay bañ a jaxasee sa poche ak poche entreprise bi donc loolu lépp ñun ci loolu la ñuy noonu la ñuy accompagner entrepreneurs yi ñu mun a dissocier la poche euh, la caisse familiale de la caisse de l'entreprise waaw ba pare mën a tamit seen statut entrepreneur bañ a am euh, pression sociale bu ñu subir aujourd'hui Sénégal par rapport aux jeunes